lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. waaw ah, sëñ bi ñu lay nuyu la siyaare. wax dëgg yàlla moom li ngay wax moom am na solo lool Sénégal ci boppam moo yàqu léegi ni ñuy wute xaalis baaxut xoolatuñ lu baax xoolatuñ lu bon ki gën a ki a bon ci àddina gën a araam ci àddina léegi moom moom mooy ku baax ki kooku la ndeyam liggéey Sénégal léegi waale Seck yàq na ko Ouzin Keita moo xumay waxam sax ndax moom kenn xamul dafa dof kenn xamul nit la moom li mu sol sax jigéen gu baax wul bugg koo sol waxatuma laa góor gu toll ne moom man de su ma nammee am doom yu mel ne ñoom yàlla bu ma ko am ndax baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg léegi jëlatuñ niti diine yi euh, kii leen léegi ñoom ñoom rek ñoom rek di leen génne télé amatu amuñu fi benn njëriñ Sénégal amatuñu benn njëriñ Sénégal buy waxee ne ñu naan waale sekk lii diw lii amuñu fi benn njëriñ Sénégal lu du yàq suñ doom yi. yàq suñ doom yi dong la lii nag dañ cee war a jug war koo xeex waaye duñ ko xeex de duñ ko xeex tey ji bu beneen imaam defoon lenn wala keneen sëriñu daar def ko fii la ñu ne ci dëkk bi lu ñaaw lu ñun du leen ko wax te li Wally Seck di def ñeneen di ko def ñeneen ak ñeneen di ko def moo gën a piir fuuf te duñ ko wax fii lañ ko tudd barki démb ñépp jóg ñii di ko xeexal ñii di wax fii ñii di wax te bu fekkoon benn imam moo ko def rajo yëpp ak tele ñoom la ñuy amee ñoom moom baaxuñu ci dëkk bi tey baaxuñu ci gis nga yàlla mi ngi ñu koy wan yàlla rek mi ngi ñu koy wan dëkk baa ngi lu bon liñ fii def dong moo dëkk bi mënta avancé nawet baa ngi nii du taw du def dara ñoom ñoo ko waral buñ jóge ci dëkk bii xoolaat seen bopp bu baax billaahi wallaahi Sénégal yi xaw ma réewum jullit la xaw ma réewum lu mu doon. asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, mbokk mi maa ngi lay nuyu lu bari di la siyaare te kontaan sa vidéo bi dama ko gis ci YouTube bi sànq ni laa ko liir am na solo trop am na solo trop wax dëgg yàlla li nga wax noonu am na solo trop trop trop man de Sénégal fi mu toll nii wax dëgg yàlla moom yéeme na daal yéeme na de fi mu toll nii moom ñi war a wax nag wax nañu wax maanaam ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ñi wax ne ñoo ŋànk diine ji ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor autorité suñu autorité yi war nañ wax ak ñi nag mais ba ñu leen di encouragé encouragé wu comme li nga wax noonu rek fu mu toll nii gars yi Sénégal dañuy ràngati nit dañuy ràngati nit dem dem dem ba léegi fu mu toll nii nag ñi ñu si bëri nii dañuy yaakaar ne kii Ouzin Keita li mu nekk ni lu baax la ak Pawlish ñeneen ak ñeneen li ñu nekk nii ci lu baax la te fekk ci ay caaxaan dañ sànku ku sànku dañ ko war a indiwaat ko ci as indiwaat ko ci nit ñi delloo siwaat ko daal jéem koo dellu siwaat man daal yéeme na daal lii nu ko nit ñi mën a seetaanee kilifa yi mën a seetaanee te koo xam ne nii ñoom ku si nekk rek nee nga am nga koo yaakaar fi nga jóg foo xam ne nii moom mooy sa wasila xanaa ñooñu dañ leen du wax ne dañ leen du dimbale nag ci dañ leen du dimbale dañ leen war di dimbale nag ñoom itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo leen di ñooy ñoom la ñu wax ne ñooy seen wasila ñooñu dañ leen di war a dimbale rek di leen xamal seen diine tuuti wala ñoom dañ dul gisanteeg ñoom dañuy wax naan kii mooy sama sëriñ kii mooy sama sëriñ te ñu ngi gisante ñoom mais xam naa kay lii bu fekkee ne danga nga ne am nga wasila am nga foo yaakaar nga fay dem di ko siyaare wax dëgg yàlla boo demee war na wax a yow ci mbiru diine jim la wàññi tuuti boo bàyyiwul lépp itam xanaa lu bëri da koo kii lii moom dafa ñaaw ci Sénégal trop wallahi man de métti na ma ba ca kanamu yàlla métti na ma lool te xam naa nag lu gën a garaaw lii itam dana ñëwaat. parce que phénomène euh, phénomène bu kii la fi mu toll Sénégal autorité yi suñu autorité yi ceexaan kuy ceexaan rek lañ mën a may doole fi mu toll nii gars yi dañ koy may xaalis di ko encouragé yàq rek ñoom macha allah yàlla ñu yàlla dimbale daal maa ngi jégalu lu bëri bëri nag xam nga rek wax dama ko mënul sama xol a rek mais yàlla nañ yàlla may kii xam na nag ñun moom taniwuñ kenn sax waaye nag. en tout cas daal même booy def loo lu kii sax bul ko fësal ba yéeme na daal maa ngi jéglu lu bari bari na ku baax jéglu nag dama mënul wax rek ok maa ngi jéglu bu baax a baax jërëjëf waay dama gis kii bi nii ci sa whatsapp rek dama gis kii bi nii ci youtube bi man a xaram euh, kii ko génne li nekk sama xool daal tuuti xam naa ne lépp mënta jeex waaye daal maa ngi jéglu daal ok nekk si mu jërëjëf waay maa ngi lay encouragé bu baax ci vidéo yi asalaamaaleykum ak tur ak sant ci te leen wax ne lii nii def nii dañ see war a kaas da parce que ñii ñii dañoo jàppee Sénégal comme ay fo xëy na leen ñoom ñii li ñuy def nii yëpp dañoo jàng moo tax ñu koy def waaye bu ñu jàngee duñ ko def te kay tamit mu gën a xamante ne bi mu sol du yére góor yére jigéen la mu jël ko sol ko ci yaramam dañoo yépp sénégalais yi ko mu ëpp ndaxte nit ñi duñu wax moo tax mais bii moom dakaa war a xeex boobu beneen yoon yi te ne beneen moroom mu te saña def asalaamaaleykum waa li xew tv soo ñu leen di ziare bu wër a wër di leen bëgge di rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax leen xamal ne liggéey bi rafet na fi doy leer nañ macha allah waaw leen ñaanal ngeen gën a góorgóorlu rek yàlla jàppale leen euh, euh, site bi dem ba dooni ba dooni ay télé télé macha allah eh, mbirum actualité bi nag tëgg euh, Sénégal moom li fi xew temps yi duy na waar trop trop trop trop trop duy trop trop trop parce que booy xool bu ñu waxee ci actualité bi li Ousin di def nii c'est que Ousin moo taxaw mais du Ousin ñu ko mën a waxee. Ouzin moo taxaw di réagi di def di mouvementé mais mais du Ouzin def def daa am ñi làkku ci ginnaawam di ko pousser loolu moom ñëpp xam nañ ko mais euh, ñi làkku seen ginnaaw dañoo sox dañoo soxla genre ñoom Ouzin yi parce que ñi star star lu maanaam ñi forcé star bi genre yooyu dañ lañ lañ gën a soxla muy genre ñoom Ouzin ak ak ay moromam ñu koy def. lu ndaw noonu lañ leen di jox ñoom ñu yaakaar ne ñu ngi yor nañ àdduna ak li ci biir parce que ñoom booy xool euh, mbirum xaalis bi ñoru leen bës bi moo leen ñor bës bi kese moo leen ñor ñoom dañuy def duñu xam sa lu ñuy def liñ ciy récolté duñ ko sa xool. asalaamaaleykum en groupe maa leen nuyu lii moom lañ see war a duñ ko war a dindi moom rek ko jigéen si boppam dafa baaxut si réew suñu réew bi nag ñun moom lañ am muy Sénégal. góor jigéen moom danoo war a def ku def affaire góor jigéen ñu duma la ba nga rek le verre ba ñëpp xam ne lu nga def baaxut ak góor moom xam ne góor nga jigéen xam ne jigéen def moom mooy lan nga xam ne baaxul ndax solu jigéen rek la solu ci kilibam bi asalaamaaleykum Leewtoo TV na leen def maa ngi ci jàmm am bu baax alhamdulilah waa lu may rafetlu si seen phase bi parce que affaire da ngeen lu ma seetaan ci YouTube bi loolu rafetlu naa ko baax baax parce que dama gis ngeen def seen kii Ouzin Keita kii bi solo leen bi mu solo yéegunu rafetul kenn xamul lu mu niroog li moo yàqu société bi parce que nit doomu aadama da nga war a tàmm lu baax jéem a xam lu baax jéem a di def jëfin bu baax mais li mooy def mooy yàq xale yi parce que daanaka da yàq Sénégal daal li daa rafetlu mu ko dara tege ne yàlla. waaw bu seggee te war naa góorgóorlu bañ a jéem a yàq Sénégal parce que lii day yàq Sénégal xale yi mooy loolu góor wóor def fi comme jigéen góor da nga war a def comme yëfi góor góor jàndal xam nga mooy loolu noonu parce que lii lépp maam maam yoon di bokkoon na ko mu jug jamono la waaw mu jug jamono lu nekk na koy gis góor day mel ni jigéen jigéen mel ni góor mais lii rafetut waaw nit tamit na nga jàng lu baax bañ a yàq askan wi waaw maa ngi rafetlu seen liggéey nag jërëjëf ñu ngi la ñaanal jàmm salaam jërëjëf waay. asalaamaaleykum waa Leuz TV maa ngi leen di siyaare waa di naqarlu rek lépp waaw mu jëm ci wàllum góor jigéen maa ngi koy baax man xam ma Ouzin Keita xamoon naan Keita kooku dafa yëpp nit ñi dafa yëpp Sénégalais yi lii pour man Sénégal yi ñoo war a jug kaas ko mu maanaam li baaxul ci réew góor guy jigéen jigéen lu baaxul ci réew waaw baaxul ci réew loolu baaxut nañ ci jóg nañ ci jóg. salaamaaleykum ooy ñu ngi ziar bu baax a baax a baax euh, dama bëggoon joxe sama xalaat quoi parce que Sénégal moom fu mu nekk nii doy na waar trop yaa ngi dégg mais nit ñi léegi daal yaa ngi dégg bon gëmatuñu yàlla gëmatuñu yenent bi yenent bi moo tax léegi ñu si ñu si bëri léegi comme ay mala yaa ngi dégg ñu naa ne sax léegi sax am nu si ñoo xamante ne nii mala sax moo leen tane parce que nit ki boo gëmul yàlla gëmoo yenent bi yaa bu baax a baax di def yéen nii mala sax moola gën yaa ngi dégg bu baax a baax bon nit ñi bëgg nañ xaalis yaakaar ne xaalis du jeex yaa ngi dégg yaakaar ne àdduna bi du jeex dañuy nax seen bopp waaw même même gouvernement bi sax gouvernement bi am si ñoo xamante ne nii ay góor jigéen lañ yaa ngi dégg bu baax a baax moo tax ñi am fit ay Wally Seck ak ay Ouzin Keita aussi ñu am fit yaa ngi dégg di sol ay yëre jigéen parce que am na ñu nekk seen ginnaaw yaa ngi dégg di leen jàppale ak ñeneen ak ñeneen ñoom te ñu seen ginnaaw di jàppale kon nii la mën demee daal parce que lii moom lu ñaaw la. ñoo war a def nag marche quoi ñun sénégalais yëpp génn di moom ñu xeex ko foofu quoi parce que lii yoon c'est pas normal